mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu seen yóbbalu bis bi ak ndongali Cheikh Ndiaye Gana maam Cerno Ibrahima Faati radiyallahu taala anhu mas naa bokk ak Sëriñ Tuuba dala wallahu ci ndab bi ñu tàmbalee mu ne bismillah xaalid ibnu walid sëriñ bi téye ab loxoom ne ko ana loo ci jublu mu ne ko dañoo wax ne loo ko lekkaale mu rees sëriñ tuuba xaadala wallaahu maxtaaralaho ne ko bu ngeen waxee bismillah sama tur wi rekk la yàllay diglu siiw na mbokk yi lii nag daf may nuru lu yàgg ca jamonoy sëriñ Mbàkke Mor Anta Sali radiyallahu anhu waaye bu nu amee dara ci ak seetlu dana nu xam ne daanaka turu sëriñ bi mooy al ismul ansam dara mënta jariñ bu ci àndul dara it mënta lor bu ci àndul loolu moo tax képp koo xam ne am nga yaqiin ci loolu doy na ko ci lépp lu muy dugg wala lu muy tàmbali muy tàmbalee bisimilah barke borom tuuba rawatina ñun ñi nga xam ne ay murid lanu te Seex Abdul Ahad Mbakke radiyallahu taala anhu waxoon ne gëm ak wóolu ak yaakaar sëriñ Touba rek lañu koy def. kon dana doy ci ñun lépp lu ñuy dugg wala lu ñuy tàmbali wala lu ñuy sos wala lu ñuy sanc di ci tàmbulee barkeb borom Touba wallaahu a'lam sëriñ bi dañu sëkk tey ëllëg kon nag nañ ko fas yéene nañ ko fas yéene liggéey